sëriñ maam Dame Ndiaye wilaaya sopp soxna Amina Mbàkke ginnaaw bi mu siyaaree mbooleem julliti ak taalibe yi mu ngi fas yéene ànd a génn ci waajtaayu tabaski gi indi leen ay xéewal xéewal yooyu nag lan la ay tissus yu mucc ayib yu taaru lool ngir mën ko am ci njëg yu taw feexe moo xam muy jesner bazin riche super 100 brodé wala palmaan rawatina nag mbokki wilaya yi wala mboolem xeet tissu bu ngeen bëgg rek jokkoo leen gaaw ak sëriñ maam daam Ndiaye boo leen jokkoo. man na andi ba fa ngeen nekk waaye itam mën ngeen koo fekk si mu jox leen tis yooyu nga xam ne nii ngir tabaski bi xam muy soxna yi góor yàlla yi xale yi wala képp ku rek sëriñ maam Dame Ndiaye fas na yéene ànd ak yéen ci waajtaayu tabaski gi andil leen ay tis yu mucc ayib ci njaayeen bu taw ci yu xéewale ngir jokkoo ak moom nag yomb 78 116 40 84 wala 76 688 32 46 waaye na yéemul foofu xam ngeen ne képp ku ne tabaski wax xar yéen ñi nga xam ne nii naka jekk daa ngeen jëflanteeg sëriñ maam daam jaay ci waajtaayu tabaski gi mu indi leen ay xar yu mucc ayib ren jii nag dara wàññeeku ci kon nag yéen ñi nga xam ne nii soxla ngeen ay xar ay xar yu mucc ayib raas bu mu mën a doon. prix bu mu mën a doon gaaw leen gaaw jokkook sëriñ maam Dame Ndiaye wilaya sopp soxna Amina Mbacke mu daal di leen ko yéwénal ci nu mu gën a gaawee numéro bi nag benn la 78 116 40 84 wala 76 688 32 46 sëriñ maam Dame Ndiaye daal. képp ku jokkoo ak moom sa waajtaayu tabaski daal jàpp naa ne dina xéewale te dina jàppandi Serigne Maam Daam Ndiaye nag mooy sant yàlla waaye di sant waa kër gi nga xam ne nii moom la ko suñ borom dooleel muy waa kër Serigne Darou asan Ndiaye di ñaanal bu baax a baax nag Serigne Cheikh moom Serigne Mouhamadou Assane Ndiaye ak ay rakam ñu yàgg fi lool te wér.